Adim Adim sembar parana Isa Isa mbar bi bëri na combat bi jeexee nii lan mooy sa xalaat sant na yàlla bu baax waaw parce que li moo gën daanu li moo gën daanu li ma Satu yang mën daanu mën nañu ñaar dëgg la waaw ni la ma demee nii Wow. Kau yàlla bu baax mais sant yàlla quoi li la yàlla dogal li la neex yàlla sant na yàlla ñun waaw jërëjëf Hey, hey, hey, hey! non dafa baaraam bi moo dam baaraam bi moo dam baaraam bi bañ a yàq bés bi. waaw xool baaraam bi. amul problème. waaw lii. waaw moo ma gagné gagné na ma garaawul. mais li ma bëgg a def lii moo ma ko tere. mais géré na ko. géré na ko lii du. ban période nga damm si combat bi. non dafa gaañ. dafa gaañ lii entraînement laa dammee. ñi may àndal sax xamuñu ko masqué naa ko tuur bañ mu senn non franchement buñ dee wax gor waaw ak bër def na ko quoi lu yàqul dara si carrière am dëgg la waaw fii ba suba duma daan daan jaajëf fii ba suba jëm cëri daawul bëree nii dañu waxante dëgg xam nga li jëm cëri daawul dafa kenn 3 minutes wala 5 minutes dañu waxante dëgg mais su bëree nii c'est parce que ñun ah. bëree bi ñu yor xam nañ ko Ameth carrière dara xaaju ci. dëgg la ñu ngi préparé pour ñëwaat ngeen gisaat beneen Ameth def. ah ñu dem eh ñu dem gënal géew gënal géew gënal géew ñu dem eh wuyu ma Ameth waxal ak Adim toujours Ahmed Deme daa dem entraînement nëbbu ko gars yi baaraamu Ahmed Deme bi dafa dem entraînement mu yóbbu ko gars yi tey la Xaadim Xaadim Ndiaye géré na ko ba kenn yëgu ko mais Xaadim na nga loolu ba kenn yëgu loolu Xaadim saa buy dem mbër mi daa damm saa ah? buy dem mbër mi daa damm c'est bon. Baax na xam naa loolu